Soumari.com, Touba Darussalam Karo Prestige de bébé doudoun ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf la journal joxe wuti xibaar télévision joxe wuti xibaar yéenekaay yi joxe wuñu ay xibaar moom la gis démb ci Sénégal taux de réussite bu 100 Maimouna Ndour Faye nee nañu moom la gis message biñ ci bëggoon a jàllale Maimouna nee na jàll na bu baax baax ci réew mi ak ci bitim réew weddi na it sa moom Maimouna Ndour Faye li ñenn ñi bëgg a gëmloo askan mu di bañ a fay impôt moo tax média réew mi di géréw Maimouna Ndour Faye nee na loolee amul ku ko wax waxoo dëgg wax nga lu amul amul benn entreprise de presse bu bañ a fay l'impôt li ñu wax mooy nañu toog a kilifa yi waxtaan ak ñoom ñu xool signal bu fort lañu wone wane dem ci xët mu njëkk Le Quotidien ki di Amadou Ba mi fi newoon jamono premier ministre bu Sénégal mi ngi sakku ci ñaari walli muy ci média yi ak ci autorité ñu bokk tok waxtaan ngir sak saafara ci jafé jafé yi honorable député Abdou Mbow feelu ko ci journal bi bay xam le ne sunu problème ci Sénégal moy yalla dañoo natto ay njit yo xam xamuñu lan moy farata journée sans presse bi woon démb ci réew mi journal Les Échos nee réussite totale danaka média yépp ko jafé ceex na boo ko mel ne ku ci Vox Populi dañoo yàpp rek média privé yi ci réew mi waye l'impôt bi état bi di topé entreprise de presse li ci média public yi amee mu ëpp boo boolee RTS Soleil national ak APS di ay médias yu ànd ak nguur gi amee nañu ci dette fiscale entreprise de presse yi 75 pour nañu li xew ci réew mi démb gàkkal na dereb Sénégal ba gàkkalaare démocratie bu ndax fu nekk la doon ŋawt ŋawtee Sénégal démb ci àdduna bi source nañu moom kay média international yi mu di média yi féete bitim réew Sénégal lañ doon waxtaane démb li ko tàmbalee ci média bii di Le Monde ba ci bi ak ni mu doxe mi ngi ñuy xamali ne xeex bi du fi yam tey ji ci àllarba ji ak suba ci alxames ji dañuy boycotté activité gouvernement bi le public bind ne journée sans presse gi média woote woon démb topp nañu ko bu baax a baax ci réew mi waaye leneen liñ ci seet le public nee nañu mooy état bi fexe na ba féewale employé yi ak seeni patron patron bu Pastef di Ousmane Sonko mi premier ministre bu Sénégal lii quotidien xëy na di ñu wax yu ñaaw yu mu mu demee ca cérémonie d'investiture ba drapeau bu Sénégal sax protocole d'état bu Rwanda bi gisuñu woon solos di ko yëkkati ci wetu drapeau bu Rwanda boole ceekit moom Ousmane Sonko yagar yagari na ba yegg Rwanda moo ko délégation terewul ba mu yegg président bu Rwanda di Paul Kagame da ko soofantal ñàkkal ko fayda snobé ko Sonko jóge Rwanda jaar Mali dafa defa ko wax yoo xam ne Bassirou Diomaye Faye lañu ko sant Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République bu Sénégal mi ngi ci xët mu bi ñu santaane woon ci tabax yi ñu def ci boori géej ñu naan ko domaine public maritime ba def nañu ko ci rapport ba jébal ko règlement intérieur assemblée nationale les ko ñu xamal né dinañ ko modifier ajjuma ji di ñëw modification yi ñuy namm ci règlement intérieur pencum ndawi réew mi Sud Quotidien gis na ne ci procédure d'urgence ci la jëm ñu dem ci réew Quotidien and ak mom dem ba njaareem benn boucher jaay jaaykatu ndawal bu fa yene kay bi né nañu mo dajalé ñetti jabaram yépp fase leen ndax waxi dem sumari.com Touba darussalam Caro Prestige seen